yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp quoi incha allah ñoom lan lañ bëri seen tableau yi bon li ñu bëri seen tableau bi moom mooy dañ ne nit ku ñuul dundam dafa am njëriñ donc le policier yi di bàyyi di rey nit ñu ñuul ñi uh-huh. loolu la ñu bind ci tableau yi nii quoi voilà ok yeneen tableau yi lu ci bind boo xoolee fii nii li ñu def quoi moom mooy defend de police maanaam police yi fii dañ leen défendre waaw ñoom seen liggéey la ñu def quoi waaw ci ndaw and en blague communauté maanaam nañ dimbali blague ci koli suñu seen seen seen dëkkuwaay yi ñuy dëkk waaw suñu gën a am progression boo xamante ni si moom la ñuy bëgg ci seen seen seen seen adduna bon beneen tam mooy black life matter black life matter moom mooy black mooy ci ñuul life mooy ci doomu aadama bon maadam moom mooy dafa am njëriñ waaw donc dañu war a fekk ñu ñuul ñi ndax suñu dund dafa am njëriñ voilà léegi fii children matter Black art. Black art model. Black love. Black love model. Black boom. Black model. And a black life mother. moment you need to know am njëriñ. Black children mother. moom you doomu nit ñi ñun dañoo am njëriñ. Black art mother. mooy black dafa am njëriñ mooy nit ñi dafa am njëriñ. Black love mother. mooy. bëggeelu plage moom tamit dafa am njëriñ boo ko ñëwee plage Dream Mada na ñoom fu place bi nekk dañu gëm na ñoom mën nañoo nekk lu ñu mën a nekk rek mën nañu ko nekk quoi tubaab bi yóbbu lu ñu dara parce que li moo wan ne ñoom ay nit lañ ñun ay nit lañ donc loolu fu nga amaat ci sa adduna bi yaa ko mën a prouver waaw mais nag moo tax ñun suñu bopp ñu war a gën a gëm suñu bopp couleur bii du dara gëm-gëm la rek quoi parce que ñëpp ñoo bokk maam Adama ak Awa waaw ñëpp benn la ñoo bokk suñu maam ñoo bokk benn ndey ak benn baay. yow nan ngay ñaawloo tey. ñaawteef boobu ñaawteef boobu alkaati def li ma koy ñaawloo rek moom mooy toujours dañu bëgg blague yi ñoom ñoo tane blague yi wala blague yi ñoo leen tane mais kii bi dañu seen bopp nit sa bopp ñu gëm seen nan nga gisee tey dar yu weex yi taxaw tey di xeexal tey daru ñuul boo ñuy woon ne ñëw xeeb nit ki boo xeebee sa bopp rek ku tuuti lay yow mais boo gëmee sa bopp tënd la voilà mais nag comme souvent bi ñooñu gëmloo nit ñi ba ñoo war a gëm suñu bopp donc ñun ñoo ci war a jiitu. Ah. ok tënkal ma ko ci anglais li nga wax noonu. waaw li ma bëgg a tënk ci anglais bi moom mooy par exemple we all are the same only God mooy yàlla know the difference no matter if you are black or you are. A white. We all have the same mother and the same father. What is Eve and Eve? Oh. don't we have to respect each other and live this life? black is not better than, you know, uh, white. White is not better than black. We all the same. We all come from the God and we all going back from, you know, we, we all going back to God. So we have to respect each other and believe that we can be anybody. We can be anybody. We can be anybody. Don't let nobody, you know, put you down and try to, you know, leave you there. No, you have to get up, stand up, and believe yourself. You can be anybody tomorrow. Yeah? But you, you, gotta, you gotta believe You gotta trust it to make it happen. Fight for the people. You gotta fight the peace of this world. God created this world. It's not for playing. It's not for hating each other. We have to believe each other. a yaatu spectateur. ok Modou Black Lives Matter. Modou yow nan nga dundee situation bi. bon situation bi ma gisee mooy. que ni nekk da war a jàpp sa bopp sa moroomu nit comme ni nga jàpp sa loolu bu ko defee rek ñun ñëpp nekk si jàmm. ok xam nga kenn gënul kenn yàlla dañ ko wàcce ñun ñëpp pour benn mission muy nekk ci li mu bëgg mu tere jeex taxaw tey di xeex ndax der bu ñuul am liberté tey bi fii ci Amérique noo ko gisee lu ma ko gisee mooy boo gisee sama yaram dafa daw wala dañu ñëwoon pour dem ñibbi nekk si yoon di ñibbi nii mais bi ñu ko si yaram moo daw moo tax ñu tourné ñoo taxaw fii représenté africaine yi

mooy par exemple doomu aadama yi fi ngay juddoo donc der bi waru fa def valeur donc li fay def valeur mooy xol bi ak ak ak ngëm-ngëm bi donc tey loolu mooy fàttali tey peuple américain bi tey ñu ngi nii taxaw tey di xeexal tey der bu ñuul ñi ngeen gis si ñëpp ay der yu weex lañ